nga ko waxee sànq bëri ñu ngi liggéey mais comme ni ñu tiim fii doy na waar xam nga comme ni nga ko waxee ku nekk euh, di gas fu nekk nga xam ne ñii nga de bari nañ boo xool ku nekk ñi nga xool fan la sa mbokk nekk ak fan nga mun a dend ak ñi nga xamante ni euh, génn nañ àdduna ñu jege la ñu jéem mën a dendalee kooku mu nekk lu metti heure bi oh. beaucoup parce que 22h yaakaar naa ni tegal na 39 minutes euh, ñu nekk ci buntu armel bi nga xamante ni moom moo di armelu Ndoungour Fall comme ni ñu ko mën a waxee ci turu dëkk bi ñu jéggal ñu bu ñu ci juumee ndax jamono ji euh, pression la ñuy liggéeyee lii métti na Abdou xam nga ni métti na rawatina jigéen ñi jigéen ñi yuuxu yi ñuy yuuxu te mënuñu am accès si armel bi. billaay wallaay te booy xool sànq bi ñuy ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ci armel ba taxaw ci bunt bi ñu ngi ñu naan ñu euh, ngi li nga xamante ni moom mooy teen yi pour xale yu jigéen ñi bañ bañ faa dem parce que sànq ba léegi dañuy génn di daw pour moo ci gën a doy ñi ngi tëj teen yi pour xale yu jigéen ñi bañ ci dugg waaw am na ñoo xam ne ne tey jotuñoo déglu lu ministre bi wax parce que euh, ñi ngi xalaat à sababu bu leen wanee ñoom mënu ñoo détourner daw dugg ci teen beeg yooyu mu nekk ñoom instant ñi ngi ci lu méttee méttee méttee méttee ku ko dundul rek doo ko xam nga nga yegg si fi nga xamante ni moom mooy dëkk bii di Ndougourou Fall donc bu ne am na fii waaw imagine toi presque dix neuf personnes euh, gaañu jàpp vingt boo xool presque six yi jàpp neuf yëpp fii lañ dëkk am na ñu nga xam ne kon ni nga ko waxee nee cinq yi fii lañ dëkk yi ñu ci des dañ fee ñëwoon xew doon dellu mu leeral loolu famille la comme ni nga ko waxee rek man maa ngi koy doog a gis boo xool ne ci biir ci ay image yaa ngi gis waa ji ndeysaan mi ngi ci ginnaaw toog nañ di jooy. te moom góor la te góor la ngay xam ne am na lu ko metti vraiment vraiment metti na doy na waar. bu nekk teewee nañ ko waaye denc bu mel nii dafa mel ni mosuñu koo fekk. non man mosuma ko fekkee dem naa bu nekk mais. maanaam dajale li nga xamante ni ñoom ñooy ay ay ay ay néew yu mat cinq personnes jàpp six ba huit ñu bokk ci même village nekk ay mbokk ak heure vingt deux yii nga xam ni affaire yi euh, métti na métti na parce que bu accident amee paa bi mi ngi ko doon dox euh, heure yi lañ mën a denc parce que am mu mel mu waa mu waa mënoo bàyyi ba suba nga xëy gi ñu ñëw ñu ngi dégg hôpital bi ñu ngi am problème li nga xam ne day gën a tax ñu ñëw rek jébbaleen seen borom di ñaan euh, yàlla mi nga xamante ni moom moo am sañ-sañ ba def lii mu si lii di ñaan suñu borom yàlla xaareen àjjana te yéexeen te xam ni daal métti na trop dëkk bii ñuy dunguru faal man xam naa ni ñu ngi lu metti parce lu ñuy wax yaa ngi koy yëg man maa ngi koy yëg keneen ak keneen mi ngi koy yëg métti na trop. Euh, jamono ji baat yu ñuy yëkkati dafa diis lool Abdou. Mm-hmm. baatu laa ilaha illallah foo ko déggee ñaari yoon rawatina boo fekkee ab groupe bu taxaw di ko xam nga ni euh, naqar naqar lañu tiim ñii ay góor lañu waaye dëgëruñu. dëgëruñu boo xool maa la koy wax ne la image yi gis góor <laughs> mi ngi ne toog euh, di di di di jooy nga xam ni loolu nga xam ni loolu métti na loolu métti na doy na waar xoolal lii kii taxaw fii ñii taxaw fii ñii taxaw fii jotee mu leer nañ ñi ñenn ñu góor du kenn du ñaar dañoo petoo toog fële di jooy ñenn ñi ñi ngi dencee côté bële yaa ngi gis ki gën denc ci càmmoñ yaa ngi gis ka nga xamante ni mu ngi denc ndeyjoor yaa ngi gis itam ñi nga xam ne ñoom lañ jàkkaarloo jamono ji ñuy denc seen ay néew non dëgg la metti na c'est dur billaay wallaahi comme ni nga ko waxee man instant yi <laughs> instant yi soxna euh, aju maa ngi wax mais mënuma parce que dafa dafa metti boo xool dëkk dangay xool nga nekk ci kër nekk ci kër presque euh, ñu bari génn àdduna te boo xool village yi dañuy wax dañ naan mais benn la parce que kër yi dañoo takkaloo dañuy xamanteek yooyu yëpp kon bu li amee day metti day metti trop trop trop ba pare am na lu ma ci dégg lu am solo ñu koy wax ne boobu ba léegi aji nee nañ amul benn autorité bi nga xamante ni teg na fi tànkam loolu loolu loolu rafetul ba pare ne ñun ñi nga xamante ni ñun ñoo dëkk dakaar ñun ñoo fi doog a ñëw kon yaakaar naa ne loolu li ñu jot metti trop boo déggee li ñu expliqué nañ ñi fi nga xamante ni fa ñu dëkk amul courant amul ndox buñ ku ñu dem génn seen saret la ñuy teg amul yoon bu baax xam ma mu mu leeral la ñuy ak lii ñëw dal leen yaakaar naa ne état bi war na mu ñëw mun gestu leen dimbal leen billaay wallaay dégg lu nee na am na benn inst ñu ne ko ba xam ne am nga yaakaar ah, jot ci li nga xam xamante mooy loolu mi ngi si jot dégg lu ma wax fekkee ay nit lañ nga xam ne loolu am na lu mu wax bu fekkee ñun ay nit lañ euh, nañu xam bu fekkee ay nit nag nga xam ne loolu dafa doy waar daal dafa doy waar. ki naan ñi ñàkk seen bakkan sax noppalu nañ waaye ñi faatoogul ñooñu dootuñu dundati nit yu mat sëkk ay genn wàll la ñuy doon. non billaahi euh, <laughs> rawatina Abdou mënatul communication bi ndax moom itam dafa mel ni maa ko maa ko tane ci côté dëgëraay Abdou euh, jamono ji xol bi euh, neexatul fàttali leen mbokk internet yi ñu topp ci Feeling Dakar TV Dakar Live TV ñu ngi fii ci diwaanu rek jege loolu fi nga xam ne moom moo di Louga fa accident bi amee jege loolu euh, Ndungul Faal moom la ñuy woowee bile dëkk dëkk bi nag fàttali leen ay doomi adama ñàkk nañ seen bakkan ci l'accident bi jamono ji tembe yéen a ñuy seetaan en direct ci Dakar Live ak Feeling Dakar ñu ngi taxaw man ak Abdou ci buntu armée armeel bi mënuñoo dugg ci biir ndax itam abdu loolu du sutura euh, fanuy dencee euh, mën nañu faa dem am nañ accès bi ndax may nañ ñu ko waaye suñu ngor may ñu ñuy ànd ak caméra dem di tiim ay pax yu nga xam ne ay doomi aadama lañ ciy denc ñuy ñaan yàlla suñu boroom jéggal leen ñuy ñaan yàlla yërëm leen ñuy ñaan yàlla xaare leen aljana ñuy naan ñaan képp ku ñu fa tàbbal rek euh, malaakab yërmande daal di lay këf te yàlla na nga dajeeg Seydina Muhammad sallallahu alayhi na yàlla yërëm leen ndax turu yàlla bi ñuy bi ñuy wooni rek yàlla bi ñuy bi ñuy dafa am mhm, comme li nga wax saako nee nga tur yàlla bu bare rek euh, à chaque xool li nga xamante ni mooy lu métti la euh, boo gisee turu Allah bi day tax yàlla suñu borom doolu yërmande ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo fi euh, jóge si ñoom yaakaar ndax demin. frère ñu leen di di la ziar di la masew bu baax a baax comme ni nga ko waxee sa xarit bi nga xamante ni dafa bokkoon ci accident bi ba génne àdduna balaa boobu da leen di di la ziar. di fay bu baax a baax. Mhm. di nuyu lu bëree bëri. di ci nuyu di ko jox ñëpp nag di ziare ñëpp te moom comme li sawaay wax rek saa moom ñëpp ànd ak naqar parce que boo imagé booy toog sax di xalaataat li ngeen doon imagé yéen ñaar sax sa yaram day daw nekk na koo xam ne wax dëgg yàlla moom macha allah te bañul kenn dara nekk koo xam ne ku baax ku yaru ku ko gis xam ne kii nii macha allah man wax dëgg instant nii moom xaw ma lu ma mën a wax fi mu toll parce que instant yi wax ju bëri sax instant yi mënu ko. instant yi may jël wax ji rek bàyyi ko kii nii mu jottali li ci des mais instant yoon wax moom. pour l'instant mënu ma si dara. comme sa comme sa kon day baax comme ça lii bu amee ñu toog nga wax ci moom alors ah, ñu gis sànq ba léegi ah, ñu ngi lay gis ndeysaan yaa ngi tuur xewal naan ay ah, njaga fi ma toll dañoo bëgg a xam njaga fan la la mbay mbay mbay moom fi ma toll moom dafa bari moom. parce que lu bëree baree bëri comme li sa waay wax sànq rek teraanga ju bëree baree bëri maam moom seq nañ ko defal na mu lu nekk des fois sax damay ñoo bokkoon fi noonu liggéey mbuur may liggéey ñu liggéey si ak ma feebar su ma feebar yi am jàmm day jaral bu wàccee lu nekk lay jënd indi jox ma amul lu muy bàyyi bu ñëwee tuut ni ma am tane nga ma ne ko waat na du jóge sama wet ba keroog may jóg du jóge sama wet fii tamit liggéey bi ma nekkoon fi mu toll nii wala moom moo tax ma nekk ci parce damaa ne woon si yéen liggéey mu jëlee ma fa ne ma ñëwal fii ñu denn maa ñu nekk liggéey bokk nekk koo xam ne daal wax dëgg yàlla moom fi ma taxaw moom wax dëgg yàlla macha allah comme ni ko kii waxee rek yaakaar naa yaay mais ñàkkul ñun ñi ñoo ñàkk mm-hmm. parce que ñun ñi nga xam ne guddeeg bëccëg ñoo ñàkk mm-hmm. waaye wax dëgg yàlla yi ñaan nag yàlla mi nga xam moom moo ko jëlee yàlla na ko yàlla xaare ajjana seddu gi ak ay moromam mm-hmm. loolu rek la ñaan tamit den yi rafetlu seen kii tamit ñu ngeen si rafetlu bu baax a baax a baax mhm. loolu daanaka laa amoon ci loo xam ni dinaa ko a sànni ku ni noonu comme ni nga mu tàggu la dee dem li nga xamante ne moom mooy Dakar a nga jékki-jékki dégg ñu waral na la génn na àdduna loolu naka nga ko dundee non man moom daanaka ñëw bi fii sax wax na ma ko neewoon na dinañu day dem ngénte mais dese bi moom beneen booy bi nekk mbuur moo woo téléphone fajar teel may xëy mhm. léegi bi ma woowee ni ma euh, yëg ngeen xew man nag lan moo xew moom tamit nangu loolu nangu maa wax lu leer ni ma lan mënuma lan moo xew munuma sa doom de dégg naa moo décédé ma ne ko looy wax ni ma waaw bi ma ko waxee oto ma dugg damaa sànni sama téléphone gars yi ñu fi ku ne kii lan la xawma sax boobu man ba xam man maa ngi ci ban réew laa nekk boobu sax xamatuma ban réew laa nekk nii man ma ko parce que fi mu ma ko waxee eh, dafa yéeg ci man daal dafa yéeg ci man ba nga xam daal saa daal mu xaw ma tuuse mais di ko ñaan daal xam naa ne comme li gars yi ñaan danga moo fi des mais wax dëgg yàlla moom xoli ma fi mu toll nii moom ah mënut mënu koo mënu koo fàtte moom mënu koo fàtte te ak chaque fois rek li ma li ma daan wax man dama koy wax nee naa ko man nga dund rek nga nefi laayam incha allah sama taaw man te su ma ko yàlla may yow laa koy tuddee te incha allah dara du ko mos a dindi bu sooba yàlla sama premier taaw bu ko amee incha allah si kàttan yàlla mbéy lu doy waar <laughs> bul nag moom man mii damaa jooy ba mu mënatumaa jooy. Mhm. del déglu del xool Feeling Dakar site bi jox information yu leer Feeling Dakar Dakar di am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar